salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nga xamante ni bi yéen a doon suivre jotaay alquran topp ko depuis ramadan bi passé ba léegi mu nekk émission boo xamante ni bi dañ leen doon faram-fàcceel lépp loo xamante ni bi nekk na ci biir alquran moo xam ay xisos la wala li nga xamante ni bi mooy ay jàngat la yoo xamante ni yàlla suñu borom jàngale na ko ci biir alquran jotaay alquran boobu nag moo ñëwaat bañ jub si koor gi mu nekkaat waajal koor ni nga xamante ni bii noonu la sénégalais di waajalee koor ak ni nga xamante ni bii noonu lañ waaj war a waajalee koor ñun ñi nga xamante ni bii ñun ñooy ay julit ñun yàlla suñu borom wàcce ci koor ni kutiba alaykumus siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun allahuma jaalna minhum moo tax tey jotaay bu am solo bi ñu ànd seeg oustaz Mortala soxna Aminata ak soxna faatima pour waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni bii euh, noonu la ñuy waajalee koor gi seq ko ak suñu oustaz oustaz Mortala borom sañse bu bi tey macha allah oustaz maa ngi lay ziar. Euh, maa ngi delloo Eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Eh, di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul suñu jàmm yàlla. te jéggal ñu suñuy bàkkaar. di la nuyu waat bu baax Seydou Amar. Mm. Eh, soxna Amina soxna Fatima. Mm. ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mm. mu nangul suñu jàmm yàlla. amiin jéggal ñu suñuy bàkkaar. di ñaan yàlla mu barkeelal ñu ci weer wi ñu nekk muy weeru chambaan mhm. waaye tamit bàyyi ñu fi ba ñu fekkee li nga xamante ne nii mhm. moom moo di ramadan muy mhm. weeru koor gi parce que wax fa dëgg yàlla yàlla rek moom moo xam waaye am nañu yàlla tudd bind nii duñ fekkee koor gi wallaahi bu ko defee kon yal nañu yàlla subhaanahu wa taala barkeelal yal nañ ko fekk allahuma barik lana fi chambaan amiin wa ballighna ramadan Ah, macha allah aleykum salaam ñu jox euh, kii soxna yi ñu nuyoo. alhamdulilah rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ixwatal iman asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam euh, di nuyu oustaz yi ma bokk plateau bi ak soxna Fatima di leen dalal rek ci seen émission. macha allah soxna Fatima. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala man daana nabi abada asalaamaaleykum wa rahmatulah wa nga xamante ne yéenay seetaan jotaay bi nga xam ni kat dañ leen fas yéene gunge. Mhm. durant mois de ramadan bi yëpp di leen mhm. wax nag ngeen teewlu ko bu baax a baax salaamaaleykum. macha allah mi ngi noonu euh, kon oustaz euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan bi comme chaque émission dañuy def reportage boo xamante ni bii ci li ñuy waxtaanee mooy waajal koor te ku nekk xam na Sénégalais ni ñuy waajal koor. ñii ay jigéen lañ dañ koy waajal ci jëndaat ay ndab yu bees mhm. wala ay kaas yu bees pour man di taajal seen jëkkër yi eh, ndogu bu baax ñii tamit dañ koy waajal ci ay colka maanaam bu dee góor ñi ñu ngay sol ay jàllaabi commencé préparer parfum yoo xam ne moom la ñuy demee jàkka ja naafi la si jaada di jolli yooyu yëpp vente en ligne mi ngi takarnaase ci koor gi tàndarma jeeg ñu mel reportage boobu lañ def tey ànd ceeg Fatima dañ koy seetaan ñëwaat ne nag ñu ngi jëm ci weeru koor tey nag ñu ñoon waxtaan ak sénégalais yi par rapport ak ni soxna yi di waajee weeru koor ndax yi ñuy jënd ak bagage yi yow ban jàngat nga ci am. ah man jàngat bi ma ci am mooy Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne dëkk bu metti la parce que bépp événement bu ñëw rek dañ ciy demee xët-xët demee ci doole te nit yow mun ngaa am fekk man awma bu ma dee xool ci yow chaque jour damay daanu. nit jullit chaque jour xoolal la nga xam ne moom la sa poos attan nga di ko def kaase nga doon dékkee bu ndogu jotee ndogoo ko su fekkee moom nga am sukar koor ya ñuy joxe nag ay joxe sa sukar sa njëkkee joxal kii man loolu man dama dama koo kii moom bokkul sama dund man. or yeeg jënd sukar koor or yeeg oto yi ñuy njëkkee loolu yëpp. yëpp du yoon ndax mun nga koo def tey mu yomb ci yow nga am ko nga joxe ko ëllëg mu metti ci yow nan ngay def ba joxe ko te kooku ci doxul. mu nekkat problème kon lépp lay def rek na ko xam te na nekk lu mën a wéy ñun sénégalais dañoo metti lépp lu nit di defal nit na nekk lu mun a wéy suba nga di ko def mais loo mënul rek bu ko commencé soo buggee nekk ak say njëkke soo buggee nekk ak say goro soo bëggee nekk ak sa borom kër lépp lay def rek na nga ko xam ndax am am yemul ci benn fan loolu daal la am lu ma ci gis gaspillage bi ñuy def togg yu bëri yi te duñ ko lekk bu ndogu jotee ku nekk defar lépp loo xamante table bi day fees dell te lépp kenn du ko lekk yow loolu ban gis-gis nga ci am. dañ koo am rek soxna si dañ koo am rek mais am na ñoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi xalaat luñ ndogoo ba ngoon jot kon ñooñu taluñu di yàq da ngay gis bu ndogu jotee da ngay kiy jox doomam dama nga soosi est-ce que am na lu mu yàq kon ñi nga xam ne yàlla dañu leen may nañu gis suñu amul ñi. di leen jàppale di leen bàyyi xel te xam ne am am yemul loolu rek am lu ma ciy wax. ah xanaa di ko di ko di ko kii rek di ko di ko di ko dëgg rek li kii wax sama sama xarit bi wax ndax ndax su su su moom du force wax dëgg yàlla du force ndax ndax nit ñi ci boppam ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo bëgg ay affaire suukaru koor ay nii laa ay ay nii la ak fii la daal. ndax ndax ndax ndaxte tamit sama sama sama benn benn benn kii doomu bàjjam doon na ma ko wax. dañuy dañuy moom dañuy moom dama dama kaa war a jox suukaru koor kenn kaa ngi dëkk ñaag kenn kaa ngi dëkk Masaar léegi léegi léegi moom moom mu ni man dama ko jox suukaru koor ma ne ko boom boo ma yóbboon ci moodu moodu yi de boo ñëwee dina dinaa jox suukaru koor waaye nag ci ci sa bopp nga ma nga ma indi kon kon nag ci kaw ba ci suuf yëpp mooy suukaru koor gi yow laa ko jox mu mu di ma kaañoo nii te te wax dëgg yàlla loolu moom du force moom suukaru koor moom du force wax dëgg yàlla ñu gis ne suukaru koor day indi sax fitna ci kër yi parce que ñaari wujju peccar go dañuy nekk ci kër yow loolu man xalaat nga ci am ke néew du doole kee am waaw lool la ki kii kii kii kii moom bu néewee doole ki kii am bu ko defee danaan danaan danaan day sonal jëkkëram ni ko ni ko ni ko ni ko tey di nga ma jox ma yóbbu suukaru koor du noonu léegi léegi nag loolu loolu loolu daal moom lañu lañu la ñu war a daal lañu war a arrêté te te def loo man ndax doole yamul ndax réew ci boppam moo metti dafa métti métti boo xamante ni doole yamul daal waaw. <laughs> teguñu ko si yoon dañ ko bëgg a forcer nit ñi te fekk loolu du dëgg du yoon parfois nit ki day am defal la am na ñoo xam ne amuñu ñu bañ leen yamale ci kër yi ñu nekk ñuy sëy même kër dañuy dem ba duñ leen yamale parce que kii am na kii jëkkëram amul kii di def kii amul lu mu def xëy di la ci meree xam nga la ci gaara Sénégal la war nañu xoolaat bu baax suukaru koor bi ñu xool nan lañ koy doxalee nit ki bu amee defal la amul problème mais bu amul tamit bu leen ko ci mere à cause de suukaru koor parce que fii rek lañ ko fekk ñun ñoo ko jël rek teg ko bu ko def aada mais yàlla santaane wu ko kenn santaane ko daal. ñi nga xamante ne comme genre bu ñuy joxe lan ngeen di joxe yéen suukaru koor yi. parfois nga gis ku def jas neer daf boroode teg ci xaalis def si suukaru koor bi ay or saa dañ koy joxe mais am am yi yamuñu xam nga li ma la léegi nit ki kii am na defal na leen kee amul yamale leen rek nga xam ne doole moo yamul man loolu rek laa ko jàppee. togg tamit togg yu bëri togg yu bëri yi ñuy togg jus yu bëri yi ñuy defar te nit ki du ko lekk. tuul yow ban jàngat nga ci am en tant que yaay. ah bu nekkoon sama sago ñu def lu yam rek loo xam ne bu ñu lekkee duñ sonn ñu geesu ñoo xam ne ñoo ñoo leen ëpp doole amuñu doole ñu dimbali ko rek bañ de nga ba nga xam ne bëri boo xëyee dem tuuri ko fekk am na koo xam ne jege na la ndoguwul sa amul sa lu mu naanee si yow nga def loo xam ne sa njaboot mun ngeen ko lekk lu ci des ni nga jox ci koo xam ne néew ji doole nga dimbalee ko comme te weeru koor lañ wax weeru yërmaane nañ doxalee noonu tey ji yow bagage yi xale jigéen ñi di jënd ñiy sëy di changé waat ay kopp changé ay bool changé décoration kër gi yëpp loolu yow ban jàngat nga ci am. waaw man loolu moom boo amee ut say bagage yi rafet mun nga ko def ut say basel parce que loolu day dundal xool boo amee dara nekku ci mais boo amul tamit yàlla mayu la nga xam ne fii la lii la la yàlla séddee nga yem ci rek bañ a sonal sa bopp xool koo xam ne yaa ko tane bañ a xool koo xam ne yow mii moo la tane waaw loolu la. Sénégal tamit jeunes yi dañ naan dañuy tëj koor dañuy tëj saison. yow tëj saison bi ban jàngat nga ci am ban gis-gis nga am ci tëj saison bi nga xam ne moom la xale yi di def. man tëj saison góobu nga xam nga ngay dem ci boîte yi dem place naan noonu nga koy tëjee noonu comme te weeru yërmaan weeru jaamu yàlla la yow boo koy tëj na rafet. parce que loolu nit ki jour da nga war a jaamu yàlla comme te ne dañoo jël ne weeru koor buñ ciy dugg dañuy tëj ku nekk di tëjee nu la neexee non d'accord ma war a xam nga jaamu ba weer bi daal lépp luñ ciy uddee yow nga am ci lu bëree bëri moom gën a nga naa da ngay tëjee boîte plage soirée loolu du tëj koor moom loolu moom doxul. waaw macha allah ginnaaw biñ ko seetaanee balaa ñuy ñëw ci jàngat yeeg reportage yi yiñ def oustaz fi may njëkk a dugg mooy ci waajalu koor ku nekk xam na ne Sénégal quatre vingt quinze pour cent des musulmans lañ léegi quatre vingt quinze pour cent des musulmans yooyu noonu. Euh, bu Ramadan ñëwee wax dëgg yàlla gis nañ nit ñi ni nga xamante ni bi moom la ñuy waajal koor gi mais est-ce que dëgg-dëgg yenn waajal yi ñuy waajal koor yi oustaz maanaam du dem ba xulu dugg ci maanaam li alxuraan doon wax rek wala taxlu fii diinikum ak sa propre jàngat daal. Mm-hmm. aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, Amar laaj nga ma laaj bu am solo. Mm-hmm. laaj boo xamante ne ni dinaa ci taxaw tuuti. Mm-hmm. parce que lu jar a leeral la. diine islam. du diiney folklore. Mm-hmm. loolu lu ñu war a bàyyi xel la. Mm-hmm. du diiney mbumbaay. Mm-hmm. bi maanaa. diine la joo xamante ne dafa ñëw. ngir defal sa diggante ak sa borom. wallaahi alazim miir buy waaj a daanu. maçon bi ñëw xoolal la ko ni la miir bii léegi mu daanu. yow nga dem ca kenkaayiri ba. jënd fa sa plâtre. Mm-hmm. ak sa ñaari siwo yi mm-hmm. wuti woo mosoo de. Mm-hmm. miir boobu doon waaj a daanu. moom nga jël peinturaat ko ba mu nice ba ku romb daan ni waaw waaw miir bi moom nice na de. yaa ngi gis. mooy miir ba moom ma ngay belli. ma nga nice waaye est-ce que wóor naa toog ci suufu miir ba. maçon ba day bu fa rombee moom du fa toog. bi maanaa euh, sol jàllaa bi. ah parfum Mm-hmm. muuru bari mëlës mm-hmm. te sa xol bi ko xaroon mm-hmm. fekk ci rëy ga nekkoon ci xolu na ñu baal ma ci baat bi walla ñàkk jàng wala ñàkk dégg loolu lu ñu war a orienté nit ñi la bi maanaa dañuy wax ni binaa ussaajid xablal masaajid bala ñoo tabax jàkka nañu tabax ki fay sujjóot wallaahi lan mooy loolu mooy Sénégal d'accord 95 pour cent xam naa 95 sax yokku na. Hmm. temps yi passé maa ngi dégg benn xaw ma Pape Pape Sidi Fall moo ko doon wax. Euh, dëgg la bañ ko compter dafa yàgg xanaa mu nekkee xale ba léegi. Hmm. Hmm. <laughs> mu ngi noonu. Euh, bu ñu jël diine ji def ko diiney folklore. koor gaa ngi ñëw. xaar ma jënd ndab yu bees kaas yu bees yére yu bees. non d'accord en tant que weeru koor weeru màgg la. islam bañu ko. mais dafa bëgg bala ngaa jënd kaas bu bees mhm. nga xoolaat sa xool bi ba xam mhm. yaa ngi ko pare pour beesal ko wala déet mhm. sa ruux nga jëm koo beesalaat weeru koor weer la woo xamante ne nii weer woo war a dëgëral sa diggante ak sa boroom la taqwiyatul alaqa wasila baynaka wa bayna allah mhm. moom mooy nga fexe ba dëgëral sa diggante ak sa borom macha allah loolu lu jar a bàyyi xel la mhm. kon yi ñu gis mhm. nga xamante ni dañ ci dem ba ëppal surtout nag surtout ah mooy li nga xamante ne nii moom mooy suukaru koor nga gis ni gis nañ ko léegi ci suñu reportage bi ah, yaa ngi gis. Mhm. nga gis mu nekk loo xamante ne nii dafa doy waar. Mhm. suukaru koor yi. nga xamante ne mhm. surtout maire yi dañ ciy mere seeni seeni goro. surtout maire boo nga xamante ne ni dafa am ñaar ñu seesi ci kër gi. kii mën naa am seen papa ak seen famille am na. kii seen famille amul. bi maanaa exemple man maa nekk ci kër gi yor ñaari soxna. yaa ngi dégg sama aawo bii masalan moom am nañ alal mu indil sama yaay suukaru koor ay or. ay gestionnaire di ko yebbil mm-hmm. mais loolu lañ fi gis léegi. yaa ngi gis. bu ñu jógee foofu keneen ki moom amul. Mm-hmm. su ko defee yaa ngi gis maire bi keneen ki dañ koy xas dañ koy tuutal ci kër yi. Mm-hmm. loolu. lu doy waar la moo tax suukaru koor yooyu tamit macha allah nañ ci bàyyi xel. suukaru koor bu njëkkoon benn genre ramze la woon rek loo daan jox sa goro wala sa papa wala sa yaay. wala paa bu nekk ci koñ bi dem na ba doon liggéey léegi retraité na. nga jënd suukaru koor daal di koy jox. maire bu daan dem marché dematul marché. koor gi ñëw na nga jënd ñaari kilo suukar boole ci tàndara ma ñëw nuyoo ko daal ko koy jox hmm. loolu la woon hmm. loolu la woon moo tax loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax caaxaan yi ñu ci bëgg a boole bi maana hmm. loolu loolu bokkul ci koor gi waaye nag bu fekkee dugg nañ ci mais ñu limité ko mu nekk lu yem islam bañu ko est-ce que xam ngeen fi may waxee bi maana islam bañul ñu joxe suukaru koor mais buñ ci ëppal bu mu jar ñu ciy xeex mbaa ñu ciy xuloo mhm. wala nga dem sax ba rol si sa bopp ah. am ñoo xam ne dañuy leb pour def ko waaw paree duñu am ñu am si ay problème mais xoolal xoolal loolu dem lebi ji pour joxe suukaru koor mhm. Mhm. ndax boo ko joxewul ñu xas la boo ko joxewul ñu tuutal la léegi bu koor gi passé nga daal ciy topp nag war a fay bor boobu mën na laa topp ba kenn xamul mu indil la ay ay dañ siy divorcé ay jigéen si divorcé mais mais mais xoolal loolu loolu loolu lu doy waar la kon bu ko defee daal Euh, li ma bëgg daal ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. Mhm. mooy cheikh bi li nga laaj. Mhm. mooy koor gaa ngi ñëw. Mhm. nañ changé. te dañ koo war a sentir. dañu war a sentir ni koor gaa ngi ñëw macha allah. instant bi macha allah boo rombee mbedd yi tàndarma ji moom mu ngi mu ngi commencé sàjj. mu ngi jolli ci tali yi. Ah, baax na nañu sentir ni koor gi ñëw na. ci soxna yi duggaat ci waañ wi génn ndab yépp Mhm. Mhm. raxasaat waañ wi ba mu set. Mhm. raxas ndab yi macha allah. loolu islam bañu ko. basang yi nañ ko fóot incha allah. soxna si na defaruwaat xam ne koor gi mu ngi ñëw d'accord. waaye bu mu rey jëkkëram ci ni ko foofu la nga jënd kaas yu bees. ay kaasa ngi fii ñu mën a naane. amul problème. yaa ngi dégg waaye taaj téeméeri kaas yoo xamante ni dégg nga maam benn kaas nga ci guux pare buñ nekkaatee foofu di <laughs> dindi waat bi maanaa teg lu nekk ah hamburger yi fii ah, yére yi chocolat yi te doo lekk sax xaaj bi te doo ko lekk bi maanaam loolu yàq la rek yooyu tamit dañ ci bàyyi xel bu baax koor gi bu ñëwee wallahi azim ñun non non non ñun jullit ñu war a xoolal suñu bopp la bu baax sax yow koor moo ñu waroon defar mais boo xoolee au fond koor moo ñuy yàq boo moytuwul waaw ñëwee ñun ci lañu yàqoo koor gi lañ gën a mën a yàq mm-hmm. tey jii kër yu bari bu koor gi ñëwee ci la ñu gën a mën a dépenser d'accord mm-hmm. nañu joxe ñu lekk nañu joxe ñu naan mais buñ ci ëppal mm-hmm. buñ ci ëppal ndogu jot nga defar bisaab defar ngalax defar buy yaa ngi dégg bu fee benn njóobeen nekkee mu bëgg yëpp mu daal ko ni dugaas téye ko hmm. yeewu waat fajar bëgg xëddaat hmm. yaa ax yi du loolu hmm. yow koor gi dañoo ñëwoon waaw kay yow année bi yëpp deux mille vingt et un gi yëpp sa mbaq gi mu ngi doon tourné yaa ngi dégg yàlla bëgg nag mu ndànk ndànk un mois yoo xamante ne nii day daw ndànk mais yaa gis koo xamante ne nii benn jouru koor dina ci sàq mi loo xamante ne nii. ah sàq mi ko woon octobre ba decembre mais mais loolu dafa ëpp. wallaahi bu defee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. kon daal bañ a guddal. koor gaa ngi ñëw. nañ ko gàttandu macha allah. nañ ko gàttandu gàttandu bu rafet. na ñëpp yëg ni jullit ñi koor gaa ngi ñëw. nañ changé waat kër gi dafa yaa ngi dégg. bale raxas même koñi Hmm. buñ mënee génn bari mbedd am na am na solo. mais buñ ci ëppal. Hmm. mais ñun nag ndeysaan ma al asafi hmm. dañoo mën a ëppal ci ay. dañoo mën a ëppal de moom moo ko yàq. c'est ça moo tax président islam ba ci borom bi maanaa man mii di wax yow. damay euh, euh, damay bëgg président yi jàngal nit yu bare ba dem tamit may na ko. mais boo xalaataatee ni boo leen ko ubbilee dañ ciy ëppal du trop. dañ ciy bu ko defee da ngay mujj sax bàyyi di leen jàngal rek lii lii farata. dañuy bàyyi farata bi yow amul problème. ay xuraasaat la mais boo ko bëggee ubbi ni dagan da ngay gis ko la laaj dara oustaz sàngam dagan na. gis nga bis boo ne ko waaw dagan na mhm. amul dara da cay mhm. ëppal mhm. loolu moom mooy problème bi moo tax allah en tout am na solo oustaz euh, bala ñuy ñëw ci quelques questions mooy jàngat bi am na solo mais dafa mel nit ñi bàyyiwuñu xel laallakum tattaqun maanaam préparation bi ni nga ko waxee sànq dara nekku ci mais le problème que ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci benn xadis mu ni man saama ramadanan imanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zambi mhm. mais nit ñi est-ce que loolu oustaz dëgg dëgg dëgg bàyyi nañ xel koor pour man ñoom dañoo jàpp ni koor pour yombale leen lekk ak naan la pour alors que pour jafee leen leen ko mhm. maanaam ñoom loolu lañ jàpp nii de mhm. lekk ak naan gi koor gis boulangerie yi day fees del loolu mënul ñàkk nag comme ni nga ko waxee sànq yàq xam nga yàq moo nga utiliser lu ëpp li nga waroon a utiliser mais dafa mel ni ñoom dañuy koor gi dañuy lekk bay tuur fàtte ñoom après koor dañoo war a dundaat loolu tamit faaw ñu xoolaat ko loolu moom loolu lu jar la jërë mhm. bàyyi xel la mhm. koor ñëwul ngir yàq mais koor dafa ñëw ngir defar ngir defar koor dafa ñëw ngir yow mi nga xamante ne dangaa juddu judd fekk sa baay am ay million mhm. fekk sa yaay am ay million musoo xiif musoo fande yàlla xiif loolu bëccëg gi pour nga sentir ni am na ñoo xamante ne nii at mi ci loolu lañ dëkk loolu mooy li nga xamante ne nii moom la al quraanul karim jël pour jàngale ko. Mhm. mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la. Mhm. lu lu lu jar a bàyyi xel la. incha ah. allah bu ko defee nañ ci bàyyi xel a mhm. baax. incha allah tabaaraka wa taala kon yal na yàlla barkeel euh, xam naa kon dañuy jox euh, kii bu fekkee am nañ ay questions. ñu ngi jub si koor gi ñu laaj ci ay questions yoo xam ne nit ñi bëgg nañ ko xam incha allah. macha allah am na solo. Euh, Oustaz première question bi mooy kañ lañ farataal koor. kañ lañ farataal koor. waaw. Eh, aywa Amina macha allah. Eh, tey moom duma ma la wax ne la am nga si kado ndax sa kado moom ba léegi joxaguma la ko <laughs> mu ngi noonu macha allah man gi nga question bi nga ma laaj. dama ciy profité moom lu ma ci leeralaale kañ lañ farataal koor. islam judd na Màkka. judd na Màkka. yàlla wax yonent bi jibril ci jaar jibril iqra islam judd. yonent bi def ñaata at Màkka. 13 ans 13 ba jóge fa yàlla farataalul koor. bi maanaam jullit ñi. Mhm. commencé nañ nekk ay jullit jullit jullit masalan bokk pour mu tënkal la yaay Xadija musta woor. Mhm. musta woor yaay Xadija musta fekkee koor. Mhm. yaa ngi dégg. 13 ans Màkka. mu dem Madinatul Munawwara def fa ñaari at yàlla doog a farataal koor ñaari at yi boo ko boo ko yokkee ci 13 ñaata la la jox. 15 mm-hmm. kon bi maanaam islam judd na ba am ñaataat. 15 ans 15 ans yàlla di doog a farataal koor loolu nañ ko jàpp ah? mm-hmm. ci ban weer weer wii ñu nekk nii weeru baraxlu wii ñu nekk. Mm-hmm. muy weeru chambane bi ci la ndigal li ñëw moo tax ndigal li daa ñëw avant pour gars yi préparer ko. moo tax dañuy te nee nañ wax nañu sax bi bi mu amee ñaari fan la ci weer wi. baax na lay la tey ni min chambane naan. après deux jours ci weeru chambane gii nii. ci la yàlla subhanahu wa taala farataal koor. jibril daal di ñëw jox yonent bi sa sam ne ko yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumu siyam kutiba googu bi maanaam furida farataal nañ mm-hmm. ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun loolu ayaaman maadudaat mm-hmm. loolu mu ngi nekkoon ci ginnaaw bi yonent bi sa salam gàddaayee dem Madinatul Munawwara mm-hmm. ba def fa ñaari at ci weeru Shaaban bi ñu nekk mi weeru baraxlu après deux jours ci la aaya bi wàcc su ko defee loolu jàngat biñ ci am mooy lan allah yàlla day defar nit gis nga da ngaa war a préparer. Mhm. bi maanaam islam islam ku comprendre nit la. Mhm. Mhm. xam nga koor islam ba mu juddoo Màkka bu ñëwoon rek ne leen wóor leen di nga gis gaa yi génnaat. sam papa mos na ma koo nettali benn waaju tuub kuñ tuubal. <laughs> ñu tuubal ko sa ngoon nga weeru koor gi feeñ. ñu war a xëy woor. waa ji ci suba nee nañ tisbaar. ma nga ne mbàtt ca jàkka ja. naan non je ne comprends quoi. tu vas comprendre. dina comprendre. ndax bu ko defee day foog ne lépp dafa metti si diine ji. ah parce que. préparé wu ko. waaw kay dafa tuub tey ñu xëy woor. fi mu tuubee moo baaxut. waaw doon xaar ba koor gi jeex sax. noonu la fekk tabaski gi waaw yaa ngi dégg. mais problème bi mooy lan. islam nag loolu la doon yar gaa yi bu tibboon rek farataal koor. Mm-hmm. bu tibboon rek farataal azaka. Mm-hmm. bu tibboon rek farataal xijaab. ah gars yi duñ dem. Mm-hmm. gis nga benn aaya wàccul màkka yàlla di defloo gars yi sàngama sàngam yu bari. Mm, mm-hmm. aaya xijaab muuru. Mm-hmm. Medina la wàcc. Azaka Medina la wàcc après treize ans. li nga gis koor après quinze ans. yàlla subhanahu wa taala di ko dooga farataal kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax. ban lañ ci mën a ba ci naan sàngara. Medina lañ ko lañ ko araamal. gars yi nekk nañ màkka ay at continue di naan sàngara. yàlla bàyyi bàyyi leen rek bu dee bu Medinatul mën a war après ci lañ ko ci lañ ko. Euh, araamal kon loolu question bu am solo la mhm. yent bi sa salaam euh, huit ans la woor ci dundam mhm. yent bi parce que bi ñu amee quinze ans ci lañ farataal koor mhm. mu commencé woor weeru koor vingt trois ans mu daal euh, islam bi mat moo tax mu huit ans rek la jot woor ci dundam am mario ñaata at nga musa macha allah man dama na mais da ngay xam sama man ba nekkee xale daa dara woor mais avant muy dem ci deuxième question bi am na benn seesoo bu ne ci aay bi nga tudd sànq kama kutiba alladina min qablikum waaw foofu lan lakum min qablikum boobu laa maam yàlla gëm noonu leen ni leen. Ah. nekk yéen yéen fi njëkk a woor. Mm-hmm. waaw xam nga la moo tax. Mm-hmm. Mm-hmm. woor daa metti woor daa metti bi ko yàlla ndeysaan yàlla ku am yërmande la ci. wallaahi. xam nga par saa nga ni sa doom kaay nga dem sàng defal ma sàngam. nga ne ko xanaa gisoo diw sax def na ko nga wax ko benn moroomam bu ko def. Mhm. fekk ni sax doom jooju loolu nga koy def loolu mën naam dafa metti ci moom. Mhm. nga ne ko xanaa gisoo diw sax def na ko. Mhm. en général xale loolu daf koy. motiver day concurrencer sax day dem gën koo def. xale en général bu moroomam defee dara daf koy def. yàlla ndeysaan comme koy wax ay xale ndeysaan. yàlla xam na ne koor daa metti. ndeysaan mu daal ni ay waay yéen ñi gëm neexal leen yéen yaa ayyuha alladina amanu. ay yéen gaa yi gëm ah kutiba alaykum siyam maa farataal ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum comme ni ma ko farataale woon si ñi leen jiitu su ko defee gars yi daan ne ah kon woor woor ko Cheikh bi seetlu boobu nga def am na solo macha allah léegi deuxième question bi mooy lan mooy àttee lan mooy àtte koor bi maanaa tey jii woor woor weeru koor ku mu neex def wala ku mu neex bàyyi farata la wala du farata yaa ngi dégg koor farata la comme ni julli nekkee farata. Mhm. comme ni aj màkka nekkee farata ci ku ko man comme ni génne azaka nekkee farata ci ku ko man mhm. yàlla subhanahu wa moo farataal ci kuy ab jullit nga woor yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaam kama kutiba ala alladina min qablikum mhm. yàlla subhanahu wa moo farataal ci ab jullit dafa war a woor góor jigéen da ngaa war a woor loolu farata Mm-hmm. yàggut tuuti seetaan naa xaw ma ban groupe la nag ndax groupe yi mbokk dafa bari. Mm-hmm. mais sama galerie laa ko gis. video bi benn waaye toog di weddi ni koor amul nit ñee ko créé. allah wallahi fii ci suñu réew mii ñu nekk. toog nañ ay koor yi kenn kenn nit ñee ko créé. xanaa ko bu eh? jàngul alxuraan wallahi lazim jàngul alxuraan ba bu ko jàngee dégg ko. Mm-hmm. yaa ngi dégg mbokk yi koor farata la. nit bu demee ba majeur ba nekk muskallaf léegi dafa war a woor bu woorul day am bàkkaar. ni julli nekkee farata ñu koy def bis bu jot juróomi yoon mhm. ni aj màkka nekkee farata nga ko def benn yoon ci at mi wala benn yoon ci sa dund mu wàcc la ni nga xamante ne azaka noonu la nekkee farata chaque année nga koy génne bu fekkee am nga nisaab lu mat a génne azaka nga génne ko noonu la koor nekkee farata mhm. yàlla subhanahu wa moo ko faratal ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at mu jot ñu koy woor insha allahu tabaraka wa ku ko hmm. deful da ngay am bàkkaar. léegi est-ce que mën nga ñoo ñëw si si si ñan la wàcc ñoo xamante ne koor wàcc na leen parce que comme comme Fatima mi nga xam. tappalekat la mën na dem rek docteur bi bindal ko. <laughs> mu ñëw mu ne tey du woor. ñii waaw <laughs> ay prétexte lañ bëgg. la koor wàcc man damay woor Fatima. xanaa maadaama nit ki moom. Mhm. mu ngi wér. Mhm. wax fa dëgg yàlla nag dinaa la am lu ma la nettali. Mhm. bi maanaam bëgg dugg ci ay détails yu baree bare bare. mais yàlla dafa wax na ne képp ku feebar. maridan ku feebar man mhm. mhm. kaana minkum maridan mhm. ba pare maridan la wax gis nga ñaari masque yooyu nekk ci dam gi dafa am lu mu wund bi maanaam daal dangaa feebar feebar nga yaa ci yokk loot <laughs> yaa ah, la wax Fatima uh-huh. waaw kay nag yow indi nga li gaa yi di indi yàlla ni feebar rek léegi nag feebaru jàmbur kenn du ko xeeb yow dara mën na laa dal nga ñëw ci imam ma ne ah loolu du feebar fekk ni loolu mu ngi lay rey. Mm-hmm. gis nga don ja jooju mu ni mari don nakira jooju mu ko def. Mm-hmm. dafa am lu muy wundu. Mm-hmm. aw ala safa. gis nga ba tey ren gi safa ren. ba tey ñaari masque yooyu noonu dafa am leneen lu muy wundaat. ñi jàng xam nañ li may wax. bi maanaam euh, yàlla dañ daal. képp ku feebar. mbaa nga tukki. léeg-léeg gars nag ñoo ñoo di métti. non daa ne ah, tukki bi moom ah, Eh, eh, donte que nag ñenn ñi waxuma. waaw déjà day am point point taxawal foofu waaw am ñuy exagéré comme ni nga nee feebar rek bi nii. léegi ñoom ñu jël feebar même lu la dal moo tax affaire koor <laughs> affaire koor. Mhm. gis nga yàlla wax ni maa koy fere sama bopp. Mhm. waaye yaa xam saw mu li waan aji bi. dem ni jéew a teg dil. Mhm. médecin bi di la bindal kër gi wane da feebar te dara wokku dara. xur yi gis na moo. koo def. mun ki rek nag gis naa ne ban ban secret moo nekk ci koor. Mm-hmm. koor ak a yéeme. xam ngeen mm-hmm. jàpp naa la yàlla loola la wax. <laughs> koor waa jàpp naa la. <laughs> kon dañuy jàpp bu ma. xam nga mooy lan. <laughs> dinaa ci ñëwaat si xam nga moo tax. Mm-hmm. parce que koor mooy at yàlla newoon na la boo wéetee bul def bàkkaar nga naan noo man wax fa dëgg yàlla manuma ko. ngay wéete def bàkkaar. kóor gi ñëw gi yëpp. <laughs> naan naanoo. Mm-hmm. yàlla la waa jàpp naa la. yàlla tënk la. <laughs> non yaa gis. Mm-hmm. kóor da jàngal moo tax koor boo ci génne école la bu garaaw boo ci génnee li muy def ci yow mooy muraqabatullah. Mm-hmm. da ngay bàyyi xel yàlla subhaanahu wa taala kon lu jara jara jara bàyyi xel yaa gis koo xamante ne nii ñemewul naan kaasum ndox ndax day bañ a yàqu kóoram. amul am na te bu génnee dunga cent mille jàmbur. <laughs> comprendre lu mhm. mu ngi bañ a yàq kooram. Mhm. mais mu ngi yàq àllaaxiraam. waaye yow mhm. benn suur na ngay bañ a yàq. kaasu ndox bi ku la ko bëggoon jox naan loo ko nga bañ. dama du ma yàq sama koor. dama mais nee nga dunga cent mille jàmbur. waaw nee nga dunga un milliard u jàmbur. sàcc nga teeree jàmbur. hey yow kon comprendre loo gi di. moo tax euh, jarul tappale. ku ci tappale. yow yow sa bopp nga nax dem ci ab médecin mu bindal la ah, yooyu yëpp jaru ko parce que yàlla xam na bu fekkee ne da ngaa feebar. Mhm. yaa ngi dégg tamit maa ngi ciy profité di ci wax ñi feebar. Mhm. médecin dina bul woor bul woor islam la ko. Mhm. loolu lañ ci bàyyi xel bul forcé ndax am na ah. na ñoo xam ne dañuy feebar médecin bindal leen ne bul woor mais dañuy testé ñu woor gis nga gis na am na koo xam ne da doon nettali xissa boobu ah? mu woor weeru koor gi yëpp ba mu demee hôpital dañ ne gisatuñ ci moom feebar bi. waaw d' accord d' accord des fois sax loolu koor lay dañu ci yow feebar maa ngi spécial d' accord mais man damay waxe en euh, bi maanaam en tant que ci jàngale islam laay waxe mm-hmm. am na ay réglementé ni nii exception la. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. yaa dégg am nañu ay charge la wa charge la yuqaasu alayhi médecin bu wóor am xam-xam. tere la woor ni la bul woor la gën mooy nga bañ a woor. bul woor nooy woor am maa bëgg sukkandiku ci xisab kenn. Mhm. comme te dañ ne koon bul woor. ba affaire bi woor ñu ñëw gisatuñ feebar bi. Mhm. wala yooyu noonu daal wax fa dëgg yàlla buñ ciy sukkandiku lu bari ndax nit feebar nañ médecin ni ko bul woor mhm. ñàkk ba kenam am na. am na lan moo tax ñu nettali boobu tamit ah <laughs> ñuy nettali bee kase. man de oustaz nit moo bëgg toujours luy metti islam dana la boo feebaree. dangaa feebar dem nga ci médecin mhm. ba mu juddoo ba léegi mosuma gis sama ba mu juddoo ba léegi. mosuma gis mu woor. dañ ko ko tere wallaahi. te du woor te pourtant. mi ngi maanaam mi ngi def ay activité am. mais xamal nañ ko ne mënoo woor. mënul woor gis nga am na man xam na xamal na. mais teewul am na lu ko lislaam remplacé après. balaa koor gay jeex nga joxe ko. nga joxe ko daal di mhm. kafaara mhm. daal di joxe kii loo koy remplacer. allah léegi troisième question bi. Mhm. mooy kii woor lan la si gagné. parce que yaa ngi wax léegi ne koor yàlla moo ne moo koy fayal boppam. moo koy fayal boppam alors que gens yeneen jaamu yàlla yi. mun nañ lii lañ la si fay. wala lii bi maanaam koor li nga ciy gagné bari na. xoolal yàlla dafa wax ne la allakum tattaqun. su ngeen wooree da ngeen di ragal yàlla. te gis nga ragal yàlla googu moom la yàlla musa jox yonent yi walaqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah yàlla nee na wasiya bi ma joxoon yonent yi jiitu woon muhammad yëpp mm-hmm. ak yow muhammad wa iyaakum mm-hmm. mooy an ittaqullah ngeen ragal yàlla lu ngeen jàng ci alxuraan id qaala lahum axuhum nuuxun ala tattaqun id qaala lahum axuhum huudun ala tattaqun du yéen a jàng mm-hmm. wa inna ilyaasa la min al mursalin id qaala li qawmihi ala tattaqun yonent yëpp li ñu musa woon nit ñi mooy ragal leen yàlla allah xeetu yonent bi nag la yonent yi daan woote yàlla wax yonent bi ni woowal saw xeet ñu ragal yàlla ba pare jox leen lu leen ragal loo yàlla muy koor moo tax booy woor dangay ragal yàlla nan ngay ragale yàlla koor dafay entraîner ci yow ngay bàyyi xel yàlla nit ñu bari ñu def ay bàkkaar li ko waral moom mooy euh, ñàkk bàyyi xel yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. macha allah léegi quatrième question bi mm-hmm. mooy ñi dul fay koor mm-hmm. te koor bi bu ñëwaatee ñu woor ñu waraat dama leen di jox benn ndénkaane. nan mhm. ragal yàlla seen diggante seen borom. Mhm. Mhm. yi ñi am ay bor. war koo fay. fay leen ko te yàlla tax. fay leen ko am na ñu am na phénomène bu am Sénégal ñu ko fiy dégg. du ma borlanteeg yàlla. Ah. loolu ay kalam faarix la. wax ju taxawul la ay kasaaw kasaaw la. yaa ngi dégg loolu ay kasaaw kasaaw la ak ku ko mënti wax ak fu mu mënti jóge. yàlla subxanahu wa taala moo ni na fay. yaa dégg. waaw képp koo xamante ne dafa nekk ci tukki. mbaa mu feebar yaa ngi dégg wala mu amoon ngant na ko fay ci yeneen bis mm-hmm. loolu la yàlla subhanahu wa taala wax mm-hmm. waaw léegi yan àtte moom aw safari fa iddatun min ayaamin uxar nee mm-hmm. na na fay kon loolu dafa leer kon dañuy fay dégg képp ku ko tey nag toog fayoo ko fayoo ba koor ñëwaat islam danaan la waaw kaay toogal wooral garaawul wooral ba koor 2022 gii jeex nii insha allah tabaraka wa taala mu daan ne la amaat nga ay bor ci deux mille vingt deux bi. Mhm. da nga koy booleeg kori. bori 2021 bi 2021 bi fay mhm. lépp. Mhm. waaye nag kaay. yu 2021 cinq nga fa amoon. saa yoo wooree ba ngoon dangay ngay génne wàlla mille franc joxe. sanction. Ah, waaw mooy amaan bi amaan bi la. yaa ngi dégg. muy kafaara gi. ndax yaa ko tey. Ah, bu fekkee teyoo ko nag ba koor gi ñëwaat. masalan koo xamante ne nii daaw ba ñu jógee ci koor gi la tëdd feebar ba léegi. yaa ngi dégg ci biir koor gi tane na ba commencé woo fayam fanam yële. Mhm. bu koor gi paase daf koy fay kase dara du ko topp. Oh, allah leeral na solo. yàlla may dégg ak topp yal na yàlla barkeel ngeen fay seen boru yi jigéen ñi dem kenn mën tax bañ fay boru koor soo waxee te li ci gën a neex yow onze mois am nga onze mois mais dañuy xaar di xaar ba soxbaan ñëw hmm. alors que xamuñu soxbaan soxbaan sax woor la boo nañ ca war a naafila sa sa kii hmm. mais dañuy toog ba soxbaan ñëw hmm. ñu bëgg a fayaat bu ko defee ñu feebarat di lay naan damaa feebaroon ci mois bi moo tax alors bàyyi nañ lu bëri léegi ñu ñëw ci Fatima mu leeral ñu quelque ci euh, oustaz li nga doon leeral ci premier point bi mooy ci sénégalais yi ni ñuy woore ak ni ñuy jële koor gi selon reportage bi mu ci def mu andil ñu ci quelque leeral waaw oustaz ñoo seetaanandoo reportage bi gis ngeen hmm. sénégalais yi ñoom ni ñuy hmm. waajalee koor gi hmm. ba gis nga ñi ñu jot a jël ñu ngi wax ne tëj koor gi tëj saison maanaam ñoom dañuy tëj saison bi onze mois yi léegi nag ñoom nan la ñuy tëjee saison bi yow da ngay fermer saison bi ñoom nee nañ ah tu fermes la saison <laughs> <laughs> waaw. fii ñoom dañuy fermer saison bi. Mhm. li koy fermer wee nag mooy ñi nga xamante ne dañ naan bii laay bii laay dernière soirée bi may dem. Mhm. dernière bàkkaar bi may def bi may mhm. def. dernier son bi may déglu ci année bi. <laughs> genre ñoom noonu lañ koy waaj. dernier lettu bi ma war a lettu loo xam ne daganul. loolu la ñuy def ñoo ko gisandoo. loolu lañuy ñuy loolu yan daan la lañ ci lislaam wax. Euh, xam naa su ma waxee. dina dina di ngeen yéemu <laughs> su ma nee nañ saison dara amu ci saison. dara new dara nekk ci eh, baax na c'est très grave de Ousseyn di dem soirée yooyu noonu. benn saison baax na test saison baax na. Hmm. xam nga lan moo bon. ubbi waat saison bi. ubbi ah, dañuy tëj ubbi. ah kay. <laughs> yàlla nga tëj pour man dañ koy tëj bàyyi ko noonu. xam ngeen sànq maa ngi lay jàpp naa la. <laughs> yàlla ne da ngaa bëgg tëj saison hmm. tëjal. amul problème xanaa xamoo yàlla bëgg na ki daw ñëw ci moom. waaw. mais xam nga lan la bañ. nga ñëw ci moom ba pare rocceekuwaat demaat. Oustaz ba suratu tawbati an na ala ma faata wa niyat allah yaawda ila fi ma baxiya macha allah ndax dara yi na ko. <laughs> maa ngi soog comprendre. dernier lettu. Uh-huh. moom nga wax. waaw dernier déglu son. Mm-hmm. dernière soirée. dernière soirée. am ñoo xam ne taalibe la ñuy maye ci koñ bi moom la ñuy tëjee. allahu akbar ak lu mënti am ngir yàlla. buñ ko tijjiwaat. bu leen ko tijjiwaat yow sa problème daal problème tijji la daal. problème tijji. Ah, parce que <laughs> déedéet parce que daam fu may waxee sax parce que yow boo tëjee yaa ngi woor nga woor a woor a ba koor gi jeex 30 jours nga tëjjiwaat màbb nga sa koor gépp mm-hmm. màbb nga koor gépp parce que yàlla dafa wax lu leer dani koor gi day tax nga ragal yàlla la allakum tattaquun waaye yow tey la korite guddi nga dem soirée. billahi surtout loolu mais nga 30 jours yi. corté dese 5 jours kañ nga commencé ñoo mën a mabbu koor ak ñoo mën a mabbu jëf kañ boo gis ñu mën a mabbu dëgg ñëwal Sénégal mabbu koor. Mm-hmm. waaw équipe mabbu koor moom bu amoon fii xoolal ngir yàlla bul yàq sa koor bul wóor 30 jours di ko yàq. bul wóor 30 di ko yàq ci ab soirée. Mm-hmm. mbaa dem di def jiwaat bàkkaar mbaa ngay tijji jiwaat saison. Mm-hmm. li ma tontu nii nag ndeysaan. 2011 dañ ko musalaat suñu benn oustaz bu ñu doon jàngal boobu ñu ngi Soudan ñu daal ko dañoo seetlu ni bu compo yi jub see examen yi élèves étudiants yi dañuy dëgmal jàkka ji mhm. fii dañuy jullee fajar tisbaar takkusaan timis gee élèves xam nga yéen kii def bac day ñaan jaam yàlla yéeni mel mhm. mu daan ni ñu wax daal ni loolu baax baax na mu daal nit ki bu jaaxlee dafa war a dellu ci yàlla mhm. waaye lan moo bon yàlla génn la ca la nga jaaxle woon nga daal di dawaat dafa mel da koo ko wor yaa ngi dégg dama doon wax rek benn genre message bu ma bëggoon a jàllal la mais yéen ñi tëj saison ngal la bul dem def ji bàkkaar naan damay tëj saison ngal la waay bul def tànn di biir naan damay tëj saison waxin la woon rek pédagogie la dama doon jàngale mhm. moo tax ma waxe woon noonu ci commencement bi mhm. mais ngir yàlla bàkkaar bi nga wax ni moom ngay def ji pour tëj saison yàlla mën na la caa jaare nga nattu nga am ci nattu nga far fa jaare jaaree dootoo ko bàyyeeti mhm. kan moo ne la saison boobu ngay tëj fa nga koy tëjee di nga fa moo mawti mën na faa ñëw jël la fa kon bul tëj ngir yàlla jaamul sa borom góor góorgóorlu bu baax a baax a baax nga dugg ci koor gi ak jaamu yàlla ak gëm yàlla. Hmm. waaye tamit kazaalika nga daal di jaamu yàlla continuer ci nekk ci. bañ ko ubbiwaat wala bañ dem di caaxaanal. macha allah folklore bi tamit jigéen ñi nga xamante ne dañuy sol jàllaabe góor ñi. Hmm. musóoru teg seen hmm. cheveux bi. téye kaamil. di fotow def shooting. loolu moom ay caaxaan la moom def show. yooyu yëpp ay caaxaan la folklore gi ma lay wax rek la folklore la gis nga di nit ñi surtout fii suñu réew mii. Mm. dañoo jàpp ni diine ji am tëggakum fecc la. soo jàng ak sol jàllaa bi. ak ak ak yenn façon muuraay yu ni mel. Mm-hmm. maa ngi koy gis maa ngi koy gis. Mm-hmm. dañuy jënd sax mooy col yu. col yu rouge mooy yi nag kaaranaare rek yi ma defoon ba may dem maaka rek. mu ngi noonu waaw macha allah. <laughs> yéen la jël dem da ngay gis ku ci dem di ab bi sax jàllaa bi. waaw yaa ngi la alma sa jàllaa bi. sama jàllaa bi sax. mu ngi noonu bu ko defee daal ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla. Euh, du mettil ñun joxuñu ci mekkil diine wala déet mais dañ leen bëgg yee. Mhm. dañ leen bëgg a xamal dañ bëgg a jàngal. diine ji dépassé na foofu ngeen ko jàpp. Mhm. diine ji dépassé na sol jàllaa bi bu wax yor kaamil teg sa cheveux yaa ngi dégg kaalawu di ko photo di ko wàcc di ko def statut ñuy mhm. commentaire. dépassé na foofu. dañoo bëgg cheveux boobu noonu boo ko teggee bul ko tegaat ci sa bopp. dañoo bëgg kaamil boobu nga jël photo ak moom après nga jël ko nga def ko sa dund. moo tax gi nga saar wi yàlla subhanahu wa taala farataale koor muy sourate baqara fa yàlla farataale koor ci commencement saar wi yàlla bi mu ne alif laam miim zalikal kitaabu laa wax alquranul karim ñëw kon yow mi yow mi jël yow soxna si prépare yow mi may déglu yow mi jëloon foto kaamil bi photo ak moom incha allahu tegaat kaamil bi taqool ak moom jugal nga déglu lan la yàlla wax ci alquran nga koy jëfe ngir yàlla hmm. te wallahi maa la ko waatal fii bu fekkee déggu nga ci li ngay def kaamil boobu nga duma ko tegaat dina dem xool lan na ko oustaz alline Sall firee ma déglu ko naka la ko oustaz Iran Ndaw firee naka la ko oustaz euh, euh, Hadi Niass nan la oustaz Modou Fall jàngalee masalan ñoo ñuy jàngalee ci alquranul karim mhm. nga ni pare naa pour déglu ko incha allahu rabbi wallahi koorug 2023 bu la fi yàlla bàyyee di nga ni billahi soppeeku naa changé yaa nañ ko fekk yaa nañ ko fekk macha allah am na solo man moom leen rek moo ci metti mooy yatab tab yatab tab moom Oustaz day dagg sama xol bi Sénégal ma man. waaw yatab tab nag ma xamal waaw yatab tab arabe la sax. <laughs> mais dafa am musique. Eh. mais yatab du way du way arabe du way kii. yaa ngi dégg Mm. loolu. mooy <laughs> mbëggeel benn way benn kenn kenn ku ñuy wax Nancy. Adjiram waaw yaa ngi dégg Égypte. égyptien moom moom ñoom ñoo ko way. way woowu wayu mbëggeel la. ak wayu charmeel ku góor ba. daa defee yow mi naan yow. da ngay gis ay paa ko def sax sonore. <laughs> xam ne daaw teg nañ ko ci télé bi dafa dem dékk loxoom di ñaan. di ñaan xale bu góor bi capturé ko dugal ko Instagram. dafa yaakaaroon ne loolu du aar. waaw ndeysaan nit ñi ne dañoo xamul rek. dañoo xamul dañoo xamul. dañoo xamul moom moo tax yaa ngi dégg. Mhm. Euh, loolu nag dañu war dem jàngi ji bu ko defee ñu daal di xam macha allah. macha allah macha allah am na loo ci sànni wala kii. non waaw mais fay seen boru koor yi nag. parce que weeru koor bi léegi ah, fay ngeen. Mm, merci pour la fayation macha allah mi ngi noonu en tout cas am na solo ñu waajal ko ci waajal boo xamante ni bii euh, benn aay bi tënk na lépp la an lakum tattaqun maam amaana yàlla nee na ngeen jëlee ci ragale yàlla goo xamante ni bii yoon manqué ngeen manqué woon ngeen ko waaye ku tëj saison tamit Oustaz nee na bul ko tijji dammal caabi ji sànni ko bul tijjiwaat. bàyyil noonu saison bi looy tëj ak tëjji ku la tëjaloo tëjloo nga yor sa moo lay contrôler daal en tout cas émission mi ngi noonu dañuy tàggatoo beneen émission bi ñu ñëw ci yi nga xamante ni bi ñoo war a ak ñu warul woor ak xamante ni ñooy yàqu koor baax na nit ñi xam ko balaa ñuy dugg ci koor gi euh, oustaz doon ngay tàggatoo waa xanaa di am mbégte rek a kontaan wax fu dëgg yàlla ci émission bi am na solo hmm. di ñaan nit ñi ko incha allah ngir lan ngir euh, ja ay njëriñ a ngi ci hmm. ndaxte yàlla nee na yonent la ñuy wax hmm. te man naa am billaahi benn émission mën nga ko déglu nga jaaree fi nga daal di jub. dëgg la yaa ngi dégg. Mm-hmm. reportage bi ñu def tamit am na solo. macha allah ko defee surtout yaay goro yi. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. nit ñi ngir yàlla ñu noppal nit ñi ci ay affaire suukaru koor. di yebbee ka yeb ak yebbi. gis naa fi ku yóbbu suukaru koor ay firigo. firigo firigo firigo. <laughs> suukaru koor firigo. ah loolu kii la conteneur conteneur la. loolu mooy lan. Ah. caaxaan yooyu nañ ko bàyyi ngir yàlla ah. mhm. am naa sa asila yi solo Fatima macha allah kontaan nañ daal mhm. yal mhm. na yàlla barkeel di ñaan rek yàlla nañu yàlla may dégg topp euh, li fi jub ñu def ko tiyaaba sotti ko si àdduna bi ñëpp boo macha allah si dëng rek ñu xam ne nit matut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ah. barakatu macha allah ñoo ko mm-hmm. gisandoo émission moom am na solo trop. képp ko mm-hmm. ko déglu rek ay njëriñ nga ci jëlee di ñaam mm-hmm. rek comme ne ko soxna Amina waxee. yàlla may ñu dégg ak topp ñu bokk nag ci ñi nga xam ne bu ñu déggee dañuy xool li gën a baax. ñoo ko jëriñoo ko. macha allah macha na yàlla barkeel émission baa ngi noonu mu nekk euh, waajal koor képp koo xamante ni bi comme ni ko Oustaz waxee nga ko seetaan jëriñu ci bu baax a baax a baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba beneen yoon ci beneen émission